واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا tey di fanweeri fan ci weeru rajab di tolloog ñaar fukki fan ak ci weeru février 2023 bu dee ci atu jun atum ñi mooy 1444 incha allah ñu fas yéene liggéeyal Sëriñ Tuuba radiyallahu anhu jaare ko ci xasidaam gii nga xam ne ni mu ko tudde rek turu la moo di laa ilaha illa muhammadun rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam noonu la ko tuddee noonu la ko tënkee nga xam ne araf ci nekk da cee aw bayit bu jeexee xasiida gi jeex kon xasiida gi genn wàll gi la jox yàlla suñu borom subhaanahu wa taala mu di laa ilaha illa allah wala mooy baatu tawxid beneen xaaj ba mu jëglee ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam boo toppee xasida bi tamit loolu da nga gis da ngay gis ne bayit yi nga xam ne dafa koo tënke ci laa ilaha illallah yàlla rek la ñuy wax wéetal yàlla bàkk ko ak kañ ko li lépp delloo ko ci yàlla suñu borom subhanahu wa taala waaye ba mu àggee ba ca miim gi topp miim gi nga xam ne mooy miimu muhammadun rasulullah miim googee fa la tàmbali na di tagg yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ko bàkk di ko kañ ba keroog ni xasida gi jeexee nga xam ne kon lu nu xasee ko cee liggéeyal ci jéem a xasida gi ci làkku arab yi ko sëriñ bi def jéem ko yóbbu ci làkku wolof yoo xam ne moom lañ mooy làkku réew mi moom lañ gën a miin euh, jublu ñoo wax ne li ñuy wax moom la ci sëñ bi jublu waaye liñ jublu rek mooy leeral ko sunu kem kàttan ci lañ ci xam su ko defee taalibe bu daan jàng xasida gi bu ko dégluwaatee déglu suñ sëriñ Tuubaa ni muy bàkkee yàlla ak ah. ni muy tàggee yonent bi dara mën naa tax ak bëggam ci xasida gi gën a yokk mën na caa xam lu mu xamutoon loolu rek lañ ci jublu nu ñaan suñu borom subhaanahu wa mu nangu ko te dugalal ñu ko ci liggéey bi sëñ Tuubaa di liggéey yonent bi alayhi salaatu wa te defal ñu ci sutura si ak àllaaxira ak mboolem jullit ñi ak mboolem taalibe yi fii la tàmbalee nee na aaudu billahi min ashaytaani rajim aaudu danaa muslu danaa làqatu billaahi ci yàlla min ashaytaani ca shaytaane arrajimi kadi ku ñu dàq ci yërmande yàlla mu ne shaytaane mi nga xam ne dafa yàqu ba noppi bëgg ni mu yàqoo mu ne ñëpp rek dana yàqoo ni moom kenn mënulu ko dara ku suñ borom moo tax maa ngi dellu ci suñ borom di làqatu di làqatu ci moom ngir mu aar ma ci seytaane moom mi nga xam ne lépp looy dugg boo ko tàmbalee bismillah rek kon foofu la jëm booy bind boo ne bismillah kon sama mbind mi ngay wax kon maa ngi tàmbali ci turu yàlla mi nga xam ne looy def boo ko tàmbalee ci aw turam barkaay moo cay am dara du ca yàq seytaan du ca mën dara waaye looy def boo ko tëngalu ci turu yàlla seytaane dana ko yàq te du am barke yàlla moom i mooy buur bi nga ne fii ci àdduna ne yërëm ñëpp ku koy topp ak ku koy moy waaye bis penc nag day xool rek ña nangoon a topp nangoo gëm mu fay leen lu tollu seeni jëf allahuma yow buur bi salli yàlla na nga dolli xéewal wa sallim ta nga dolli musal wa baare ta nga dolli barke ci kan ala ci sunu sang ba wa mawlaana tey sunu kilifa ga muhammadin sayidina muhammad wa alihi ak ay ñoñam wa sahbihi ak ay sahabaam mu daal di julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam nag ne ko wasrif nii suñ borom <clears throat> ginnaaw boo defalee teraanga ak jàmm yonent bi ak ay ñoñam wasrif nii yàlla na nga wëlbati bi jaahihi ci darajaam jeex moom yonante bi alayhi salaatu wasalaam ma woon gannaaw ak nu mu a demee nag loolu lu mu a doon dañ koo sit dañ koo araamal wajaal nii maa ngi lay nga def ma bi jaahihi ca darajaam ja moom yonante bi alayhi salaatu wasalaam ilayya mu jëm ci man maa lépp loo xam ne ixtartali yaa ma ko tànnalal sa bopp minal ci yi ñu digle mutlaxan mbir mu muy luñ joyal mooy lu mën a lu mën a rek wajaal te maa ngi lay ñaanit yàlla na nga def fii tawaalif ci sama taalif yi ko yaatal mu doon fii taalif mooy sama xasida gi waaye fii tawaalif yi ci mboolem sama yi taalif yàlla nag ma ci defal maa loo xam ne yafuuqu danni day kawe sama njort wa danna xayri day kawe njort ku bokkut ak man min al xayraati ci ay xeeti yiw fi dunya wal axira suñ boroom maa ñaan lépp xam ne da nga koo na loola yàlla boo ko jublu te loola nee na lam ànd xu maadam yu musuma jublu lu am njariñ kon demel yàlla nangul na ko loolu lépp loo xam ne loo digle la maa ngi lay ñaan loole yàlla na nga def ma sax ca te jublu ko bañ caa jóge na nga tënk samay cër tënk sama jëmm ci jëfe ndigal yi waaye bàyyi tere yi tey lépp loo xam ne mooy la ma tànnal ndax ñoom nit a tasoo bi dañoo xam ne tànnal seen bopp li ma tànnalal sa bopp rek yàlla na nga def ma jublu loola rek maa ngi lay ci barke yonent bi alayhi salaatu sama taalib bii ak yëpp jiitu woon nang ma ci defal loo xam ne sax kawe na sama njort waaye ki nga xam ne day ñëw di ko jàng am na mu bëgg defal ko lu kawe njort loola defal ay xeetu yiw xam ne ci adduna lay ak ci àllaaxira loolu nag soññee la mu continué nee na ko waja anhu yàlla na ko def moom xasiida gii di lillahi rabbi lazi turoo lañ ko miine amalan mu nekk jëf saalihan ju yiw mu taqabbalan nekk jëf ju ñu nangu da ngay xasida gi may waaj taalif nekk jëf joo xam ne joo nangu lay doon jëf joo gërëm nekk jëf yu yiw allahuma yow buur bi innaka naka yow xulta wax nga wa qawluka ta sa wax alxaq moom dongu mooy dëgg wa waaduka ta sab dël li nga dige ak sidq dëgg rek lay doon yaa wax ci alquran ne faman képp ku nekk yar ju di wóolu doo ko fi yaakaar liqaa rabbihi dajeeg boromam mooy faatu nekk dajeeg boromam loola képp ku ko wóolu fa lay amal nay jëf amalan saalihan jëf yu boole mi ibadati rabbihi ci jaamu gi bi jaamu boromam ahadan ak kenn suñ borom yaa wax alxuraan yow lépp loo digg rek loola dëgg rek lay doon yaa ne képp koo xam ne am nga loolu wóor na da faatu dajeeg man seen borom subhanahu wa loolu képp kum leer na nga góorgóorlu ba deel jëf-jëf ju baax deel jaamu yàlla waaye booy jaamu suñu borom bul ca boole kenn jaamu yàlla rek booy jaamu yàlla jaamu yàlla rek bu ca boole bu ca boole keneen kenn ku mën a doon waa naa taman sëñ Tuubaa nag maa ngi yaakaar liqaa aka ndajeeg yow yàlla walay sa lii takat awuma amalun jënn jëf saalihun wiiw ju baax alqaaka wax ne danaa dajeeg yow bii ci jëf joojee loxo waral li doo fii sama néew doole sama doyadi wa faqri ak sama ñàkk wa ajisi ak sama lot fa bi quwwatika kon ci sa kàttan gi qawwi yàlla na nga dollee dëgëral doo fii sama doyadi gi wa bi kaw dika ci nekk gi nga nekk ganiyan di yàlla na nga nangu ñaan yàlla mi borom bindee fi dana ko suñu borom man de xam naa leen wóoru naa moo tax sax waa anaata man arju maa ngi wóoru laa ko waroon a firee man wóor na ma ne dinaa faaroo dajeeg yow suñ tubaab mooy wax ak borom wa taala mu ne ndax sa diggante jaam ak sa borom kooku da ngay da ngay wàcce sa bopp ne ko gisuma jënd jëf ju baax yoo xam ne def naa ko yoo xam ne yaakaar naa ne su ma dajeeg yow ci lay sukkandiku loolu man aw waaw jënd jëf ju joo xam ne su ma dajee ak yow yaakaar ne dinaa mën a mucc ci jëf ji loolu ëmma ko loolu nag li ko mooy doy di ab jaam ne ko damaa doy di te waaye xam ne ku dëgër ma a wax de <laughs> waaw ab jaam boo xam ne yaa ngi wéeru ci buur boo xam ne mën na lépp ah jaam boobu boo góorgóorlu li nga mën lépp waaw ndax amoo doole ki nga wéeru am na doole man nga yow mi nga xam yaa am am kàttan nag nag sa kàttan bi yow mi nga yaa am lépp te ñàkkoo dara te am yàlla nag ma jox ba am ba du ma ñàkkati dara waaw bi kaw ni ka amin amin ya rabbal alamin daal di andi nag tuur xasida rek li mu ko tënkee moo laa ilaha illa allah buur bu jaamu ci dëgg jaamu nga di jariñ ñàkk daa jaamu nga di ñàkk ñàkk a jaamu nga di lor illa allah kurul yàlla yàlla rek moo moom moo mooy boobu mel noonu mën naa am nag am ku ñuy jaamu waaye jaamu du nekk ci dëgg de mën naa am am ku ñuy jaamu waaye jaamu nga du nekk jaamu ngay jariñ de wala ñàkk a jaamu di lor mm-hmm. kooku yàlla rek la muhammadun sayyidina muhammad <coughs> rasulullah ndawal yàlla la sallallahu alayhi wa sallam yàlla ko yàlla dolli dolli xéewal koy dugg ci lislaam moom ngay wax boo ko mënee waxtu waxoo ko amoo benn ngant day jàpp lu ko ci lislaam loolu tënk xasida dina ko allahuma yow buur bi indi naka man sëñ Tuubaa daal aqbaltu ilayka dëgmal naa la waaw bi may ñëw lu ma ëndaale mooy bi audu billahi min ashaytani rajim wa bi bismillahi rahmani rahim maa ngi ñëw ànd ak bismillahi rahmani rahim wa bi laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam suñu borom ñëwati naa ci yow bi may ñëw xasida gi ma indi maa ngi ko tàmbalee audu ak bismillah ak laa ilaha illallah muhammadun rasulullah boo xoolee ca kaw xasida ga da nga fa fekk aouzu billahi min asheytaani rajim ak bismillahi rahmaani rahim gis nga laa ilaha illallah mu ngi noonu moom mooy mooy xasida gi ne ko ñëw naa ànd ak ñooñu maa ngi lay ñaan fasalli yàlla nga dolli xéewal wa salli da nga dolli musal wa baarik da nga dolli barke alayhi ci moom yonante bi wa ala alihi ak ci ay ñoñam wa sahbi ak ci ay sahabaam wa habli te maa la ñaan nga may ma bi jaahihi ca daraja moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam barakaatil jamih barke bi nekk ci yooyu yëpp barke bi nekk ci aawus nekk ci bismillah nekk ci la ilaha illallah rasulullah na ma defal barakaatil jamih barke yooyu yëpp al jamih nag na mën naa nekk yooyu sax mën na ko génn ba jàll ci yeneen waaw bu la xee barakaatil jamih barke mboolem yu baax yi waaye comme ñett yee la amiin yàlla na nga nangu ñaan yaa rabbal alamin yàlla yow kii borom bi ndémi euh, mbokk yi xasi rek lillahi rabbi alladi qad jaadali bi huda kulli xadiman liman taqdimuhu wahida euh, xasi rek ñu yéem a yéem ta neex waay kon loolu mooy tarjumaan ji mooy sunu bindu bu njëkk incha allahu taala